Toujours dans votre acte du jour de ce 14 mai 2024 sur la chaîne des grands événements VIP People TV suñu jógee foofu dañuy seeti ki nga xamante la Souveraineté, le ministre de l'Agriculture et et la souveraineté di Mabouba Diagne ginnaaw bor bi nga xamante ni de nañ ko de di opérateur de stockage de état bi de daal dina fay lu ci fukki milliards ak ñeent ak ko xamle di ministre de l'agriculture de Moubouba Diagne suñu sukkandiko ci li nga xamanteni mo waral 19 milliards yu ñu certifié jaar nak ci ay service yo xamanteni pour campagne 2021 2022 la ak 2023 lu toll ci fukki milliards ak ñen déjà dal di koy fay reliquat bi nga xamanteni waron nañ ko honorer muy dembu altiné fukki fan ak ñatt ci atum 2024 comme niñ ko déclarer ci onde li nga xamanteni moy radio euh si on radio yi Sénégal international di RSI qui dit Mabouba Diagne ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'Élevage, d'Al dina ko xam dal nana bor bi nga xamanteni 19 milliards fay nañu li nga xamanteni fukki milliards ak ñeent yi jàppale ni que daal juróomi milliards moo des ki ko xam di le ministre de l' agriculture waaye ci biir waxam boobu dafa mel ni moog l' observateur bokkuñu ay kàddu ndaxte observateur dañ leen démentir xam ni que daal kii di Ousmane Sonko nim mu ko diggee woon fukki fan ak ñett ci weeru mai dinañ ko fay man nañu dañu manqué rendez-vous bi waaye rendez-vous boobu nga xamante raté nañ ko te ñu wax ko si Sonko kii di état du Sénégal suñ ko jaarale ci ministre de l' agriculture dafa daal di démentir bu baax a baax lii di observateur ba noppi daal di sukkandiku ci ay chiffres appuyé wu ci li nga xamante ne mooy ñu libéré li nga xamante ne information bi suñu sukkandikoo ci li nga xamante gis nañ ko dembu ci une ou di édition altiné du quotidien l'observateur ñom ñoo afficher paiement des dettes aux producteurs semenciers mouille le rendez-vous raté de Sonko Ginnaw nak biñu ñuy livré bépp détail bo xamante journal bi avancé nako jëm le nako dal ci délai bi nga xamante dañu néwon ci fukki fanu wéru mai lañu annoncé premier ministre Ousmane Sonko dal di koy annoncé dépassé nañ ko parce que tay ñu ngi tollu ci fukki fan ak ñett ci wéru mai ginnaw biñu jëlé ben risque dal di injecter ay moyens jëmale ko ci campagne bi nga xamante amul ben garantie bu mu joggé ci li nga xamante moy ben opérateur mo leen ko wax ci retard bi nga xamante dafa soxal dette bi nga xamante opérateur yi dañu impacté wu ci présente campagne agricole protocole bi nga xamanteni ni interpellé nañu kii di e jëmale ko ci côté ministre de l' agriculture de la souveraineté alimentaire et de l' élevage di Mabouba Diagne mu indi benn démenti ak ay chiffres yoo xamante daf ko annoncé mu doon loo xamanteni dafa daal di tombé si saa si ginnaaw fukki milliards ak juróom-ñeent yi nga xamanteni ni moo waraloon bor bi ñoom daal nañuy fay fukki milliards ak ñeent yi en tout cas li am solo ba am solo daal fay ngeen wala fayu leen en tant que ministre de l' agriculture seen kaddu ak kaddu l'observateur méngoo na ndaxte ministre de l' agriculture aussi daf fi taxawoon ne fay nañu jënd nañu lu tollu ci quatre cent milliards de matériel agricole alors que Macky Sall moko fi defone alors que waxuñu lolu tay su taxawaatee fi ne fay nañ ko est-ce que ñom ñoko fay est-ce que suñu gouvernement Macky Sall en tout cas doyna waat ci digënté ki di ministre de l'agriculture ak l'observateur l'observateur né dañu rank sen dañu manqué sen rendez-vous ministre de l'agriculture né na ñoom fay nañu fukki milliards ak ñent ci fukki millions ak juroom ñeent kan mo ci wax dëgg en tout cas en tant que ministre war nga wone wote conseil conférence de presse tek agriculteurs yi tek concerné yi wanee document yi nga xamante ne fay nañ ko je crois que mu leer ci boppu askan bi Thank <laughs> you.